ala allazi bihi lana alhuda bada mbokk jullit yi mbokk taalibe yi gannaaw bañ leen nuyoo ñoo ngi leen di ziyaare di leen ñaanal jàmm ak tawfiq mu mel ndaje mi xam ni daanañ ko daje doon loo xam ni sunu boroom mooy wone boppam di firndeel saa su ne ni rek lépp loo xam ni waxoon na ko jàmm lu dañ mukk ci di ko feddali kon ay biram كل شيء هالك إلا وجهه كل من عليها فان كل نفس ذائقة الموت muy baat yoo xam ni sëñ bi daan na wax ñu di ko bàyyi xel lool benn bu ci nekk di firnde ni rek képp ku yàlla sàkk indi la ci këru àdduna àpp rek nga fi am waaye bu àpp ga mate it la cay xew moom rek mooy lu mel nii muy nit mbaa muy jinne mbaa muy bàyyi ma lépp loo xam ne suñu borom ënd na ko ci kaw suuf rek bu àppam matee rek day daal doon nen loolu it dama ko waxee sànq rek moom suñu borom di firndeel kon mel ni ab jàngat la boo xam ne it doomu aadama yi war na ci bàyyi xel rawatina jullit ñi ndax képp koo xam ne doomu aadama am nga xew bu njëkk xew bu mujj xew bu njëkk gi nag donc koo fekkee te ko mooy sa gën ak jamono gannaaw ba nga dëddug jamono it xew-xew dana amaat lu mel ni boo xam ne doo ko fekkee it waaye taloo ko yànte leneen kon loolu ab waar boo xam ne wala muy ñaari diggante yoo xam ni war naa mën a waar doomu aadama ndax dafa mel ni jamono ji moom ni doomu aadama di dëddoo xaw naa takku lool te jegante bu yàggee mel ni nag loolu la tiital pour mel ni lu la miis bu nangu miis la te xam ne yooyu pexeb seytaane la lu ci nekk rek ak waare la lu ci nekk rek ak waare la kon ana li nga xam ne moo mën a muccal doomu aadama bi la ko mën a muccal nag du lenn suñu borom teg ci ndoddam di ay santaaneem mu fas mu fas yéene cee nekk sax ci li nga xam ne nag ay téré la ñu bañ ko ci seen ndax loolu kat suñu borom الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا بغا خم كان كنه سجف جف بنكم بولي أنا كتا جنا رفت جف kon lu mat a bàyyi xel nga noonu di firndeel ba tey àdduna bi du kër gu ñuy gu ñuy sax képp ku dugg ci kaw suuf gis mel danga ko am ana ci lan la lay fekk ana ci ban waxtu la lay fekk wala ana ci ban bërëb la lay fekk ndax yax ci waxtu dina suñ too wax فالموت أقرب وأدهى وأمر وبعد أن يأتي وما عنه مفر لو جملو لا يد لو يخلا باين لو جيغلا كون نك ساس ني دوم ادم مون نكو دي باي شنو عندك لا ني دون يري mooy lim bind ba fi ndax jëf ji nga xam ne doomu aadama jëf na ko it doon li nga xam ne moo koy niital doon li nga xam ne moo koy wéttal ci biir bàmmeelam doon li nga xam ne mooy tax mu texe mu jëf yu baax yi noonu la amee ñoo xam it noonu lañu nekk ci safaan bi suñ borom mës a du joxee ndigal am na ñecca ne waaye di am na ñecca ñàkk ne sëñ bi nga xam ne nag kenn fi la jógee de sëñ Ibrahima Dramé noonu ñu rafete woon mu njort ci moom it ni ca la nekkoon ndax bëggam alxuraan moom kenn du ko werante loolu moom seet yëpp benn la te sëñ Tam waxoon fa man araada al qurba min mawlaahu fal yaqra al quraana laa yansaahu ku bëgg jege sa borom dëgg-dëgg jege del saxoo njàng alquran te bu ko bàyyi mukk nitu alquran nag bu dëddoo rek dana feeñ ci njabootam ndax njabootam yi daanaka mën nañu wax ni jàngee na leen yar leen ci ci ci diine ndax bëri na nit dëddu àdduna bis ba jëlee seegul ay njabootam nekk ci leneen koo xam ne njëkk ngay dëddu àdduna yi sa njaboot ci lañu ma sa nekk it jàng alxuraan te jàng xasida yi kooku bu dëddoo yi mën naa rafet xel ci moom ndax la ko suñu borom sàmm la woon ko naa la ko laaj sàmm na ko kon dañ koy ñaana bu baax di ñaanal mboolem jur yoo xam ne ña nga ca barsàq ñaan sunu borom jéggaleen seeni rëcc-rëcc yi xam ne jotoon nañ ko def ci koo suuf sunu borom soot leen yërmande gu mat sëkk ndax mooy borom dogal ñun ñaan rek la ñu mën te ñaan googu mooy sunu gànnaay na koy ngeen ñu mi def sala si waxe kon mënta ñàkk waaye di ñaanal ci réew mi it ak xew-xew yi nga xam ni am na fiit tumuraante gi nga xam ne ñu koy bëgg a sotti ci kaw diine te mënut sotti loolu lépp ñu ci ñaax kenn ku ne ndax dañoo nekk jamono joo xam ne it noonu lislaam dañoo wesaaroo te xeex ba seen maam daan xeex saa su nekk seen yitte rek mooy nu ñu fexe ba mu law ba seeni sët mën ko continuer loolu ci déggee mooy kon juriñ ñi waruñu am benn toogaay boo xam ne waruñu ko toogaay wala ak yaafus wala ak bàyyindiku ndax ñi ko séqal kat dañuy ay ñoo xam ne it seen kàccoor foo ko natt weesu na ko seeni sañ-sañ foo ko natt weesu na ko waaye nag am nañu moyen bi ma sëkk am nañu alal joo xam ne mën nañu cee yàq lu ñu bëgg yàq kon ana li mën a muccal doomu aadama mooy pas-pas pas-pas kese mooy li nga xam ne it moom mën a musal doomu aadama ci yooyu ndax sa pas-pas boobu boo xasee bu ñàkk ko rek lu ñu bëgg ci yow dañ ko dinañ ko am te buñ ko amee ci yow seen bon du masa sa bëgg ci yow mukk sëñ bi du bëgg ci yow mukk kon nañu sellal pas-pas yi xol li ñuy def ak la ñuy wax ak nañu jëfël suñu jëflante suñu borom lu mu gëna xëñu nekk ndax ba sëñ bi dox na naan laazamtu rasulullah wa jamii al masalih masaalix di baat bo xam ne lu mat a la it ndax day jamu bi jóge ci ismu fa'il bu salih te ismu fa'il bi ñu ko waxee it mooy loo xam ni jamono jang ca nekkale rek kon fu ma toogee nii mën naa mën a si maa tuddee jaalis waaye su ma jugoon kenn dootuma woyati jaalis kon saalix kon jamono ja ngay nekk di sell say jëf jamono jooju la sëñ bi ànd ak yow saa ci jógee ni mel nee na nag sëñ bi jóge na fa kon laazamta rasulullah la wax foofu moom leer na waaye nag wa jami al bépp jàmm boo xam ne jamono ja nga nekk di sellam sëñ bi ne boobu wéetoo maag yow fa ne jamono jang ca noppi sellal ca ca sellal ja nekk ca leneen nag boobu sëñ bi du fekkee yooyu ndax seexlu na jooju jëf jurul dul jàmm yàlla kon nañu xam ne kon lii nga xam ne ñoo ngi ci di alxuraan mbaa mooy xasida yi nga ñoo ngi ci mbaa muy suñu tegg ñi nga xam ni mooy suñu wurus nañ ci mooy bu dëgër nañ ci ngoy bu dëgër suñu jëf yi nag mooy jëf yi fay fekk ci kaw sib ci bi bàmmeel ku ñu indi ci bërëb nag jéemal xam këlëfën mooy kan këlëfën day xamal lu tax mu indi la fa moo ta bàyyi xel kili indi mooy kilifa indi mooy kan ak lu tax mu indi la fi ndax kàttan gi mu def ba indi la fi ndax am na kàttan gu la fi jële ah kay bu la fi jële loo fi fekk loo fay fekk say jëf yi la fi bàyyi woon rek yi nga fi doon def ci ko suuf kon soññ la koo xam ne dañ koy soñ suñu bopp di ko soññ képp ñu ko sañ a rek ñu bàyyi ci xel bu baax a baax delluwaat di ñaanal sunu kilifa gi bawoo di jaale njabootam gi yëpp di ko jaale daara ji di ko jaale ñaari daara ji yëpp teew yëpp di Miftaax Nasri di ko jaale mboolem jullit del di ko ñaanal suñu borom gërëm ko suñu borom sotti ko yërmande njëggal suñu borom boole ko ci ñi nga xam ne ñooy doon li nga xam ne mooy janatu Firdawsi kon ñoo ngi koy ñaan mbokk yëpp di leen wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Thank